asalaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar People ñu ngi leen nuyu bu baax wax leen ziar tey ñu ngi fi seet si koo xamante ne kenn dootu présenté mu nekkoon ancien lutteur di kan di Batika Batika ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet. waaw ñu ngi lay fay Dakar People ginnaaw bi ñu sante Aïcha ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur am de rafetlu seen tawaay dina wax àddina nii la am de li yéen a xam li ngeen bëgg seen chaîne bi yàlla na ko yàlla def ba mu mujj mu nekk télé ba ñëpp di si jariñoo daal mm-hmm. waaw kontaan nañu seen teewaay. ñoo la gën a kontaan Batika tey nag euh, mu nekk premier jour weeru koor premier jour koor euh, ñu gis ni itam def naa ne muy ceeg tijaan yi laayeen yi xaadir yi ñëpp booloo doon benn waroon même jour loolu itam ba jàngat nga waaw loolu tey comportement la moo tax ñëpp bu ñu dégloo rek lépp tey lépp day leer mais xam nga bu ñee jaare fee ñee jaar fi tey mi ngi nii tey yàlla wone boppam indi bi ñëpp kenn amul ibaadu amul ñëpp nekk ko tey benn jour loolu dafa rafet nekk benn côté tey mënu nekk suba ñee côté ginnaaw suba ñee woor ginnaaw day mel ni beneen diine te diine amul loolu benn julli moo am benn woor moo am noonu lañ koy jullee ñëpp noonu lañ koy defee am de tey lii tey yàlla na ko yàlla di ko gën di saxal ci dëkk bi daal ci réew mi loolu bu ñu ko defee ñëpp dañu am jàmm rek ñuy xalifa yeeg ñëpp fàttewuma kenn xalifa murit tiijaan xaadir laayen fàttewuma kenn daal di rafetlu seen teewaay yal na leen fi yàlla bàyyi ndax bu dul woon ñoom dëkk bi kenn waxatu ko daal kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant lan nga dundee itam li fi jot a xew en tant que yow mi di Batika euh, li fi jot a xew moom mooy xiiroo bee ngaayoo beeg xale kii kilifa kilifa diine yi euh, di waxante lu ñaaw yooyu noonu ak si réseaux sociaux yi. waaw dëgg la xam nga tey nit ñi ñu ànd boo dee xool tey euh, am de bu dara waxee ñu jël wéri paane la am de toroxal sëriñ yi am de wala ba di saaga def lu neex loo rafetul loo rafetul gis nga nit da ngay ku la mag da koy jox cër am de nit ku la nag da koy jox cër ki nga xamante farak nga daal di koy muñal mais Sénégal léegi amatu lool da ngay gis ku kii wax loo xam wax bi arrangé la nga commencé ko saaga di ko daggal ay ndey di wax li di wax wax ju ñaaw yooyu yëpp dem déggoo li ma loolu rafetul nañu rafet nañ jox ni kilifa diine nañ leen jox cër mag ñi nañ leen jox cër respect leen am de bu mag waxee nga xam ne loo sa bàyyi wax ba nga muñ ko am de te waxoo ko tey bu loo ko bàyyi jàmm waxee ne kii sama morom bàyyi nga muñ loolu bu ñu ko defee àddina da lay yàlla lépp mais Sénégal da nga gis xale yoo xam même pas vingt ans vingt cinq ne ci réseaux sociaux bu sëriñ waxee ñu tëb di la daggal daggal yoo xamante ne bu ñu waxee ñu naan ñii ni nga Europe nekkuñu fa loolu nit ñee leen ci bàyyi barke alxuraanu karim am de loolu tey état da waroon def du mu mën tamit ñu indi ñoo ñëw teg leen seen ci yoon ndax di saaga ay ñoo xamante ne ah loo rafetul ah loo rafetul loolu mën na am de te ñoom mais bu bàyyee sax tey sëñ bi ñoom duñ si wax mais nag mën na leen li leen li leen yar mi ngi ñëw si kanam te di nga ne waxoon naa la li leen di yar ñi ngi ñëw ci kanam te di nga ko mës a dagg di ko partagé ñëpp lépp loo nit def rek seetaan ko lépp nga xamante ne yow yàlla santaan nit ñi nekk ci kilifa diine yi ñu ngi ne ci nit ñi ñu ngi ne ci xool luy askan bi yàqu ñu defal ko ñu ngi ñaanal nit ñi cinq heures du matin ñuy yeewu julli di ñaan yi nga taxaw ku la si wax loo arrangé wu rek nga taxaw di dagg ay ndey di saaga loolu c'est pas normal nit ki da ngay jox sa famille cër jox sa waajur cër sa waajur tey boo ko joxee cër boobu boo génnee ci met waajur jàmm boo jëw cër boobu nga ko war a jox mais munoo jox jox jox sa baay res bi bëgg ngeen def bàyyi jàmbur golo loolu c'est pas normal te loolu bis ku koy def a ngi ñëw billaahi wallaahi taala yàlla yàkkamtiwul leen ci kuraat ne mais a ngi ñëw billaahi wallaahi di nga mat sa baaram wiccax sa loxo ni lii maa ngi koy tuub te boobaa day fekk jëf wees dëgg la am na solo ñu gis ni itam temps yi amaleen lu fi xewoon ci manifestation yi am ñen ñu dee am ñen ñoo xamante ni dañoo gaañu am ay gaañu gaañu yu ndaw diggante Sonko ak Mame ñu gis ne itam Sokane voilà loolu yow loolu noonu itam yow ba jàngat nga ci dëgg la man xam nga ay préex manifestation man li ci sëñ bi wax rek man sëñ Mountakha Bachir laay ànd lu mu wax tey moom laa wax lu mu ànd tey moom laa ak xalifa diine yi nga xam ñoom ñoo fi nekk mag tey àddina bi tey ñëpp tey dañ koo bokk boo amee tey parti Sonko am parti parti Mame Mbaye Niang am beneen parti tey nit ku ne tey da ngay da ngay yow sa parti ngay fas yéene défendre ñun xam nañ ko ci politique tey boo xoolee tey ñu bëri tey ñun xam nañ politique nit ñi nag ñoo war a yeew am seen avantage bopp am de di xool luy jariñ ñu di ko def réew mi tey kenn moomu ko ñëpp ko bokk tey loo ci rek ñëpp a ci bokk tey kenn terewul nga manifester wala kenn terewul nga def lu la neex mais yàq bi ak ñi ciy rax di daj estation station jàmbur di daj ji cantine jàmbur di jël seen i portable sàcc yi di ci rax am de loolu c'est pas normal am den mën nga manifester bu leen mën nga manifester taal sax sa yëre daal loolu yow la concerné amul benn problème mais tey ñeneen ñi ci rax loo xam te bu ñu ko defee peuple benn peuple daw ànd rax leen bu ñu ci jàppee ñoo xamante ne mën nga daw sax dajee ay xale mais bu la si yoon jàppee du la pour mu bàyyi la day métti ndax dañ ñoom du ñu dañ naan yow ci nga bokk am den xam nga loolu balaa caag nga am do bañ koo def mën nga manifester wax dëkk bi lii moo loolu c'est pour kenn tëréwu ko kenn mais di taal yi ay pono am de di def lu am de di saaga nit ñi wala boo faree kee kee ñëw ne kee nga faral attaqué loolu yàlla demeewul noonu mm. politiciens yi man ñoom ñëpp moom su ma gis ñoom ñu xeex seen biir mm. ñun ñi rek ñooy reyante seen biir man loolu loolu daf maa jaaxal mm. ndax tey boo xoolee tey nu mu tëtuwaay kooku nekk ensemble nu président ensemble Moustapha Niass xaw mu Moustapha Niass depuis ay jamono Senghor ah mi ngi fi Senghor ju Senghor jóge na fi mi ngi ci Abdou Diouf Abdou Diouf jóge fi mi ngi ci Macky Sall Macky Sall ah, mi ngi ci Laye Wade Laye Wade jóge mi ngi ci Macky Sall xool loolu te mosoo gis ñu xee am de mi ngi noonu ndax loolu affaire politique affaire politique moo xawal lëmbañ mbaaj am de mi ngi noonu tey yow boo xam ñu bëgg la ci dugal def lii man bañ naa ba yooyu lépp loo xamante daal man sëriñ bi wax na ci ànd naa ci moom lépp loo xam ne nii ànd naa ci ndax affaire politique mooy da naan kii la neex nag am nga droit far fu la waaw fu la neex mais Sénégal dangay ngay gis kee far fee nga tëb saaku moo tax kilifa yi diine ñu bëri ñu ci nangu wax ndax boo waxee ñu ne kee la faral boo waxee ñu ne kee la faral dina saaga ay ndey du mel ni dëkk loolu rafetul loolu yàlla yàlla rafetul yàlla bëggul loolu nit mën nga waxte bul saaga bul yàq am de ñaan yàlla ku fi nekk yàllaa ko xam ku fi dul ne yàllaa ko moo ko xam nit kenn xamul leen ku leen woon tey weeru koor bi yàlla dina ko feeñal ba ñëpp woorandoo am de doo ko du doo ko de yàlla ay noppi bindaay lu àddina gën a yàlla ci boppam bàyyiwul a kenn dara ku bàyyi ku yaakaar ni yàlla daa bàyyi réew mi wala daa feetan yaa ngi nax sa bopp barke alxuraan kër yàlla fàttewul lenn ci këru àddina bindaay wala foo làmb yàllaa fa ne barke alxuraan kër lu ñu war a def ñu bëri nefuñu ko jàkke yee ngi fi du ñuy naafile am de ah, ngay julli doo gis kenn am de ñëpp dispari dem seen yoon tey am nga xam loo rafetu te weeru koor ñëw na da ngay gis jàkkee tey ñëpp man doomay julli tey suñu jàkk ji demaat jàkk ji daa fees fees doo xamante na mënoo fa teg seen tànk mais bu koor gi waajee jeex wala des tuuti dootoo fa gisati kenn barke alxuraan loolu c'est pas normal julli du noonu da koy respecté prière suba ngoon guddeeg bëccëg yàlla di la indil tiyaaba mais du question tey rumblement bi la si doo jënd ay jàllaa bi ñëw toog ñaari fan ñett fan nga découragé bàyyi du noonu nit ki loo mel ne boo gisee tubaab bi di raw nit ñi wala loolu moo leen ndax tubaab lu ma xës ba visé rek dafay dem ba kere muy ba àddinam fi la koy teg loolu mooy ne bu ko defee yàlla day indi lu bëree bëri daal am de di ñaanal réew mi yàlla si yàlla def barke am de tey boo gisee ñuy manifester man bokkuma ak ñoom man chaque jour sama manifestation ak ñoom bokkuñu man li lislaam santaane man ci laay dikk man defum loolu laay islam def ne déedéet man déedéet man yooyu kii ma ndax ñu li naqari nit ñi yëpp yooyu tey nit mën na def nii wala def loolu amul c'est man bugguma loolu ni da ngay toog ñaan yàlla yàlla moom àddina bi yàlla moom moom doomu aadama lu la metti tey mën nga ko wax borom bi ñaan suñu borom yàlla kat lii léeg ñaan suñu borom lépp yàlla la yàlla ci moom mooy changer mooy soppi mooy def lu ne mais boo bëggee def na wala fajal sa bopp rek day daal di metti am de man nag lépp rek dama sukkandiku ci yàlla ab sa samay wasila sëy noonu laa ndax Sénégal mu ngi noonu tey koo ànd ak ñu ni kee la ànd koo ànd ak ñu sa famille di la loolu c'est pas normal c'est te ñoon ñuy def ñun ñëpp mën nañ ko mais yëpp dañuy ànd ak dal rek waaw ànd ak dal ñëpp nañu ànd ak dal waaw di yàq bi dalu yoon waaw dëgg la am na solo Batika ñu gis itam nervi yi ñu gis ni euh, sa xarit euh, kii di Papa Sow jiinoon nañ ko ne moom moo euh, moom moo regroupé nervi yi nervi yi nekk fii ci Macky Sall waaw dëgg la papa am de di xool di nit ñi ñooy wax lu leen neex tey papa tey doo nit koo xamante ne man moo ko xamee ba léegi Papa Sow violence mosu koo bëgg barke salaatul faate tey nit tey ba jekkee ba si yàgg tey paaso tey ba mu daan bëri ay rakkam ñoom Cheikh Mbacke wala ay daam ku ci dugg ci oto bi bu ñu leen yow boo yoree kir daal jour ci si làmb ji paaso buggul sax ay yooyu mais Sénégal nag ñoom dañuy xool koo xamante ne wala comme comme kee woon na la wala kee gis na la fa ñu jóge la montage tay dossier def li wala def naa def laa am de loolu loolu rafetul nit ki boo koy wax da ngay bàyyi ba gis say firnde yu leer naññe mi def nii wala def wala def laa ay recruté ay nervi yooyu yëpp am de yooyu loolu nit da nga koy xamal ci loo xamante ne ndax man ma xam naa ne mi ñun boo gisee ko ñun xam nañ nit lu mu capable ak nit lu mu capable am déet mi ngi noonu mais Sénégal dañuy xool loo xamante ne doo rafetul nit ku ne da ngay def sa bi kenn moomu ko yàlla moo fi ne am déet ma fii kenn ragalu fi kenn ragalu fi nit koo fi woon di géej trois heures du matin man boo ma fa woon fa laay jullee timis xaar kon dañuy xool loo xamante lu jaaru ñu taxaw di ko wax déedéet bokk lu question la ndax man dama xa dama koo xam ousa jàngoo ñu bari ma xam li suñu capable ñun ñëpp si boppam barke alxuraanu karim billaahi wallaahi taala mi na man ñu capable man ñoom ñëpp xam naa ne lu ñu capable Papa Sow am de bu doon suñu jamono ñu ngi bëre ba léegi man ni ma capable di décider ñoom suñ ñu koo capable di décider man xam naa ba xam ndax man ku ma wokk ma xuri la boo ma daggee lañ seet ma dagg la paaka bi ngi noonu mais day boo demee ba yàlla dimbali ñu ba ñuy bàyyi loolu yëpp am de ne ci jàkkee julli yi di woor xam ne loolu sant boo ko bëggee def koy dem kee day génne def la lee def la lee mi ngi noonu moo tax nañu seet yàlla rek xoolaat lépp mais ay def lii di montage loo xamante ni si Papa montage ki keneen loolu rafetul lool nañu rafetul lool li ñu war a toog ña ne Europe di saaga ci siraatal mustaqim am de ku ne mën nga def far fu la neex kenn térewu ko waaw bu ñu nee réew démocratique fu la neex nga far yaay de wala am de mais waroo def nii wala def naa loo am bokkul am de ban tey bu ma gisoon tey nit def la wala dara dama lay woo ba nga ñëw ma ne eh bu fi yàq bu fi def dara am de ñu ngi noonu dëkk bi dafa am yoon ndax ku ci def loolu wala ngay mel wala def yoon ba yoon jàpp la am na wala nga def ni ko su nañ lay teg foo xam ne waroo fa jóge wala da mi bi ñoom ñëpp président kenn du ko xëccoo ku ko yàlla jox nga xam ne kooku la borom bi jox am loolu ñun kenn duñ ci boo sax bëgguma ci di débat ndax ñee boo xoolee tey ñee parti bee ñee ñee taxaw wax parti bee dañu ne parti bee ci Sonko ñii ne nii ba ñu nekk ci parti bee loolu dañu ànd ak dara rek xam ni yàlla noppi na ba pare yàlla moo fi nekk yàlla moo fi nekk man tey politique sama jàkk jee doy na ma sëkk barke barke alxuraan sama jàkk jee bu ma fay politique moom lay politique moom lay néevi nu doy na sëkk ak barke doo dox ba gis ma ci yooyu duma ci wax duma ma ci géng du ci wax dara am déet loolu mooy àddina bu ñu ko defee ñëpp dañuy am kanam ñëpp dañuy sant yàlla di ñaar nag Mansour ba nga xam dafa jublu ndeysaan xale bu baax tëgg combat Siteu ak Lac de kooku di ko félicité di ko wax ni Mansour Ba suñu rakk la Mansour Ba suñu rakk la man sama wax waxi tey man musuma soxla sax ay ànd ak wala maa ngi def politique man soxlawuma politique man lislaam laay politique nit soon sëriñ ma attaqué la waaye Mansour geste bu mu def 2007 jël coupe bi fii ah, xale bu ndaw nekk jom nekk université jàpp ñàmbaram di góorgóorlu am di jàppale booy ñi mu may lii ñi mu jàppale ñi mu jënd scooter di am de tey ko am de jël fi sàncaan coupe nga xam ñun ba ñuy xale dañu bëggoon coupe tey kooku tey parti bu mu nekk ci këru àddina man maa nga fa moom moom laa àndal tey moom laa àndal suba moom laa àndal ginnaawaat suba ndax xale bu am comportement la am yar di ko nuyu au passage nit ku baax a baax lewet yal na ko yàlla bàyyi ba combat bi mu jublu ci diggante Lac de Guiers 2 ci boppam ak euh, Siteu am déet yàlla na ko ci yàlla def ba muy eggale ko di tëggaat yeneen ak yeneen loolu comportement la mm-hmm. nit ñi dañuy jëf te bàyyi wax ji mm-hmm. wax amul benn njariñ mm-hmm. da ko amul benn wax billahi wala la maam Cheikh wax dee leen wax dee leen wax may jëf ba keneen ñuy fay wax wax wax bàyyi jëf doomu aadama da ngay liggéey mais topp def nii def nii def nii loolu amul njariñ boo yeewoo suba yor naa samay bagaas dem naa jaay ji lu ma yàlla wërsëg nga xam lii loo ma wërsëgale man bugguma dugg ci dara dara dara dara ndax sëñ bi lépp rek dama koo visé sëñ Muntaxa Basiru am de nit ñee leen tekk lu mu santaane ñu ngi si lu mu tere bàyyi naa ko lu mu wax fa jëpp moom laay yaakaar moom laa bëgg yàlla na ko fi yàlla bàyyi guddal fanam ci dërëjey Seydina Muhammad waaw Mansour Ba combat bi mu jublu yàlla na koy yeggale ci dërëjey yaa Rasulullah ndax xale bu am jom la xale bu bëgg koñam la xale bu bëgg goxam la mu ngi mobiliser ñëpp jàppale maire yi femmes yëpp barke alxuraanu karim perki dem boo passé lu mu def famille ku ne mu dugal fa jox génne ay millions jox ñeeku groupe bu ne mu dugal fa ñii trois cent mille ñii quatre cent mille loolu comportement la ñooñu ñëpp bu ñu ko doon def tey nga xam ne diine day jëm kanam l'islam day jëm kanam mais wax wax wax rek ba sa waxukaay réer loolu amul njariñ loolu amul benn njëriñ ñi da ngay jëf xool nit ki nga xam ne moom nga kólla rek tey tey ñun partenaire dañu war a xool tey kan moo fi nekk tey ñu ànd ndax ku ci feebaroon tey balaa kenn ka ngay àndal di ko politique wala balaa kenn ñëw ñi nga dëkkandoo l'islam lu wax ci dëkkandoo ñoo fay jiitu nañ def très attention ci dëkkandoo l'islam da koo bëgg dëkkandoo mooy lépp ñi nga xamante ni yàlla moo leen bir ñuy seet seen dëkkandoo yi ñoo yanante bi nee na bu yu ñoom ñooy mujj ci àddina ndax mi ngi noonu mais yow xamoo dara yow fu yow lu la neex rek def lu la neex wax nga yaakaar mën na bañ a demee noonu fii ñun parcelle dañu ànd koo xamante muy Mansour xale bu baax lu mu nekk ñu ngi ci ginnaaw ba ñu ñu ko ci lenn kër ànd ndax lislaam moo santal suñu dëkkandoo la ndax ku feebar ci koñ bi mi ngi fi jàkkee yi mi ngi fi def lu ne loo xalaat mi ngi fi def barke alxuraan dafa def loolu comportement la am de ñun daal ñu ngi noonu ñun politique wu ñu defuñu dara mais képp koo xam ne fekk ne kii xale bu baax la mu ngi dimbali waa dina di fi ñuy rakk tey mënoon nañu sonn batike may ma miir fu batike may ma téeméer mais ñun jotuñu ko jàppale na ñoom ñëpp jox ba xale yi kenn ñaan ñëpp a ngi sant yàlla ko di dimbali seen famille loolu tey bu ñëwee ñun dañ la ci jàpp ndax fii nga juddoo dañ ñu jëlal loo xam ne yeneen équipe nawetaan bëggoon nañ ko seen gox te amuñu ko kon nag boo yëngoo ci dara ñun ñoo nga fa ba ba waaw